sunu mbokk tabaarakallaahu Abdoul Aziz Ndiaye di sunu frère di sunu mag ñëw tabaarakallaahu bàkkal ñi rasulullahi wax ñi keneen Seydina Muhammad balaa lool nag tabaarakallaahu dañuy jox Oustaz Omar Ndoye mu nuyu département yi nuyu xalif yu ci réew yëpp jiital ci Sëriñ Babacar Sy Mansour xalifatul am di taifati tariqati tijaani ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam may ku wér tabaarakallaahu mbébét gi nga xam ne mbébét na ko ci njabootu kër Cheikh Alhaaji Malick ak jumaa ji mu dëkkmal yàlla na ko yàlla mottal bi jaahi rasulullahi Oustaz Omar Ndoye ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la wax bisimilah ñu ngi lay dalal sa plateau bi di keppaaru siire fii ci Leral TV incha allahu taala. bismillahi lima nafaal walhamdulillahi lima faala lana alhamdulillahi alkaamili fi kawnihi zaatihi alkaaini fi amaai ghayabaatihi alkaamili fi asmaaihi wa sifaatihi alabadiyi alazaliyi awliyaatihi azaliyi alabadiyi uxriyaatihi almutaxalliqu bi kulli xulqin fi kulli xalqin min maxluqaatihi والمتجلي في سرادق تنزيه من الجد والند والكم والكيف لا إله إلا محمد رسول صلى الله عليه وسلم وأسلي وأسلم على صاحب النصر الحق بالحق سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد زهراء وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن مولانا أحمد بن محمد السليم التجاني غوث البرية مفتاح الولايات شيخ التجاني مصباح الجنات wa radiyallahu an xalifatihi l akbar wal xalifatihi l ashhar mawlana Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy معاصره من الأشياخ قد عجزوا عن تركه هل ترى من كان علاه حمال كل لكل دون ما ملل والعرف يأمره والنكر ينهه Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy Maodo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam Al Oustaz ñu ngi leen nii bu baax di la ziyaara di am mbégte lool ak kontante teew fii ci Leeral TV fas yéene jukkat lenn ci li nu Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala anhu baaxee ci fukki guddi yi nu nekk fas yéene dëkkmal jëm bis bi nga xam ne moom lay màggal muy bisu juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla nañ ko yàlla boole defal noonu la ñuy nuyoo Serigne Babacar Sy Ibn Alaaji Mansour ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak mbooleem njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp waaye nuyu suñu bunt nag ca kër ga muy Cheikh Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy al Amin ayadahu llahu wa nasarahu wa baqaahu fi ardi ñaanal ko yàlla yal na yàlla yokk ko dëgëral ak mbooleem njabootu sëriñ Abdoul Aziz Al Amine gi yëpp noonu la ñu nuyoo ñi ñu bokkal plateau bi Moulay Abdoul Aziz Ndiaye bu sëriñ Sidi Ahmed Sy bu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil bu sëriñ Babacar bu Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Malick noonu lañ leen nuyoo oustaz di la ndokkee bu baax ci weer wi mhm. ku gis leeraay bi rek xam ne yaa ngi waaj a teeru sa wàññi si leen bu baax di la ziar sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu ñu ngi kontaan ci nuyu ñu tedd yi nga xam ne tabaarakallaahu ci nga déparé oustaz tabaarakallaahu ñu bëggee la kontaan moom suñu waay la te daa baax lool nekk suñu frère tabaarakallaahu mën li muy def lool balaa ñuy départ nag di ngeen ci xam dara arab mooy wax ne ku wax ñu xam ko waaye nag tey di ngeen dégg incha allahu taala tabaarakallaahu ñu nuyu Abdoul Aziz di ko dalal moom it sëñ Abdou bismillah tabaarakallah dañ lay bàyyi nga yow ba pare rek tabaarakallah waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, ñu ngi nuyu mbooloom tan di ziyaar ñëpp di ñaan Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam na yàlla guddal fanam ak i rakkam te woyofal liggéey bi lool ci seen kaw ñaan gàmm gi ñu jëm yal yàlla may ñu ñu egg ci ci jàmm jeexalee ko ci jàmm. amiin incha allah euh, di nuyu bu baax a baax tabaarakallaahu Serigne Sidi Ahmed si ibnu Serigne Moustapha Jamil di ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér. waaye di wàcc plateau bi oustaz daam di la nuyu bu baax yow nga xam ne sakk nga ca fa ñu dëkk waaye suñu tiitar nga di jàmbaar yàlla na yàlla defal la jàmm nuyu bu baax euh, tabaarakallaahu oustaz Omar ndoy bu al amin uh-huh. euh, di ko ziyaar bu baax a baax di ko bége di ñaan suñu borom moomit yàlla yàlla yeggali mission bi ci kawam euh, nuyu mbooloom ñi ma àndal ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm macha allah daa mel ni tey nag spécial plateau lay doon spécial lay doon incha allahu taala xam nga nag keppaaru si la ñu ko doon laaj dafa bëri ñu fay la loolu Abdoul Aziz ñi ko loon laaj dafa bëri lool tabarakallahu ñuy ñu ñu di ko doog a démarré te keppaaru siiré ku ñu ko jagleel mooy rasulullahi ak mbooleem ku topp si gidduna Muhammad léegi nag tabarakallahu ñu koy départ ci fukki fan yi burdu yi mercredi bu ci jiitu lañ koy départ 2023 incha allahu taala fii ci Leeral TV waaye nag tabaarakallaahu leeral TV nag émission buñ ci njëkk a def mooy dañuy ñëw waxtaane ki leeral lépp fii ci leeral TV fas yéene nag jël nag bindu ki nga xam ne daa leeral lépp mu Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Ousmane euh, Oustaz Omar Ndoye mi mën a leeral tabaarakallaahu ñëw wax ci bind kuy leeral rek Abdoul Aziz Diaye tamit tabaarakallaahu ñëw kazaliku ñu defee ko noonu tabaarakallaahu maa ngi leen di jaajëfal loolu di kontaan ci seen teewaay tabaarakallaahu balaa ñuy départ nag ma wax leen thème bi thème bi daal mooy diggante Cheikh El Hadji Malick ak rasulullah yi fa lañ koy téye rek tabaarakallaahu insha allahu kon nag balaa ñuy départ dañuy bàyyi Abdoul Aziz Diaye rek mu ñëw fëggal ñu bunt bi insha allahu taala ji wax ko entrée bismillah وسفع فينا في لقاء وكلنا سوى الحب موصوف برهب ورهبتي يا غيا غيا حياتي فاجعل إلهي علية لأن سرت حرا حالسا كل وجهتي فيا قيم الفردوس للإله وسيلتي إلهي بقطب العالم وسيلتي ختام نظام للولاية جملة به أرتجي غفران من كل ذلة به أرتجي فتح المخالق كلها وخاية التجان من كل سدتي وكم أستكي حن الإله زيارة زوايا ولكن العنا بقبضتي أنادي وعلي الدين داو أخ الجواه هل در يغتيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وعده وإن لم أنا العايا مرارة عيستي وأنت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داع ذي اضطرار وذيلتي إلهي فاغف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إيواني إلهي جملة ومن يمتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي مع الآل والأصحاب يا إلهي لسدتي مع الآل والأسهاب يا غائس البحر للأرض أستعفي لي أستعفل بعا درة العالمين فمننا على نبي وآله أيوة أجمعين سلام ربنا دائما ينجي ستان لخوتي يونل محمد محمد نور عبد الله سيبة هاسم وعبد المنافين ما قسيه فامننا على نبي وآله أيوة أجمعين سلام ربنا دائما في ليخ ولر التي في كنانتين وحذيمات ومدركة إليا سماح مدرين خمر زيفه فآمنا على النبي وآله أجمعين سلاما ربنا دائما برم برم مملاي ويلكنا نتين وحضيمات ومود ركتل إلياس ما مدرين خبر زيره فآمنا على نبي وآله أيوة سلام ربنا دائما أنا نبكي أنا عدت نذارا معاد المل يجاوز عدنان الفتى زيب وخاد جميع الحلال واو واو قر أجمعين سلام ربنا دائما أحمد سام سمام نين عدت نذارا معادا من يجاوز عدنان الفتى زيبو خرج من الحلال على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما دقل ما مودنين حملا محادن لسامي الأرمياء ذكروا إذ موت النزار في تنمير مالكنا على نبي وآله أي واي أجمعين سلام ربنا دائما da malik raw na gaaña wa iz ata kaana masururan yuxaal ana soppey yonnel kamala ana waa kër yonnel kamala seyduna muhammad ku mu jaral sa loxo kaw kamala yéen may seetaan ku mu jaral sa loxo ca kaw kamala seyduna muhammad sunu waaja yow lay wayal nabi ni mu juddoo kama Maodo way na ko ni nabi ni mu juddoo kama Maodo way na nabi nan la juddoo kan moo nampal yónneel tibi Maodo way na ko kan moo nampal yendel tëbi Maodo way na ko kamala nabi ni mu màggee kama Maodo na ko ni mu màggee na ko kamala yata ya am kamala Maodo way na ko na mu xamante Xadijatu kama Maodo way na ko kamala doxoon diggante ba kama Maodo way na ko kamala diggante Maodo way na ko kamal la na ko ni mu amee salaam Maodo way na ko kamal la ñaata soxna la na la am kamal la Maodo way na ko kamal la ñaata xare la xare kamal Maodo way na ko kamal la saxar la mu rañaane Maodo way na ko ni mu feebare kama Maodo way mu jee wax yoon Maodo way soxnaam la mujjee Kamal Maodo way na ko ban couleur la soloon Kamal Maodo way na ko lan moo ko doon metti yow Maodo way xolo lan la doon jàmbat ba dem Maodo way na ko lan la doon jàmbat ba dem Maodo way na ko lan la doon jàmbat ba dem Maodo way na ko ni mu sukuraate Maodo way na ko nabi ni mu faatoo Maodo way na ko na saaba ya defoon kamal Maodo way na ko ka leen gindiwaat Maodo way na ko ka leen gindiwaat Maodo way na ko nan lañu ko sangee kamal Maodo way na ko nañu lañ ko sangee kamal Maodo way na ko karooti woon ndox ma Maodo way na ko karooti woon ndox ma kama Maodo way na ko ña doon sang ak ñey wëlbati kama Maodo way na ko ko jóor ci doon jooy bàyyi fa dalam ñibbi Maodo way na ko ka doon jooy ba bàyyi fa dàllam ñibbi Maodo way na ko ka doon jooy ba bàyyi fa dàllam ñibbi Maodo way na ko bàyyi fa dàllam ñibbi gamal Maodo way na ko kamala ñaata be jaaw la am kama Maodo way na ko kamala ñaata be jaaw la am kamala Maodo way na ko kamala jëmeloo Maodo way na ko ni mu daan doxee Maodo way na kon Maodo lu muy yaa nu xamal yónneen yaa nu xamal yónneen yow yaa nu xamal yónneen Maodo yaa nu xamal yónneen ndax yaa nu xamal yónneen sargal la war nanu ndax yaa nu xamal yónneen bu la neexoon nga woote yaa nu xamal yónneen yónneen bi nga woote yaa nu xamal yoon jërëjëf Maodo ah jërëjëf Maodo jërëjëf Maodo ah, jërëjëf Maodo dukkal la war nanu ولي بلا ساكن قدير تحيا بسيبة الحمد ذي الإمدال والهمام على النبي وعليه moo dox na lépp dina salaama rabbi daiman بسهله nuyoo nuyoo la nag nuyoo dafa xam nga tabaarakallaahu Cheikh El Hadj Malick Ngoog du ma ci développé leen nag tabaarakallaahu Oustaz Omar ngi Omar Ndoye mu ngi nii toog mu sëriñ Abdoul Aziz Al Amine fi mu ne nii tabaarakallaahu yaram bi tàng na dama bëggoon Abdou yëngal ko yaram bi tàng mais dañoo bëgg a dem diggante Cheikh El Hadj Malick ak moom la ñu laaj Cheikh El Hadj rasulullah bu la neexee da nga jaar ci alaaji Malick doog a dem parce que am na ñoo xam ne dangay ñëw nga ne leen Cheikh alhaaji Malick ak rasulullah ñu ne ci Maodo nag ba émission bi jeex yaa ngi laaj diggante <laughs> aa yaa ngi laaj diggante bu yàgg aa ah. alaaji Malick ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ñaar ñi nga laaj Maodo boo ko génnee ci biir yonent bi fekk ci xam nga nu alaaji Malick mel ci yonent bi waaw nga jël kaasu café teg jël suukar sa tef yëngal suukar boo ñëwee tiim café ko doo gis suukar sax waaw waaye boo ñemee café rek xam na am na suukar la ilaha illallah wallaay ndeysaan boo ñemee yonent bi rek ñam nga Maodo est-ce que laalal yonent bi rek alaaji Malick feeñ ñii la mel ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal amin doomam ju baax ja Cheikh al Khalifa dafa wax ne alaaji Malick waaw huwa al alamu alfaqiyu mhm. nazihu almin mhm. xalifatu cheikhina nëx ja tijaani allahu akbar sëriñ Babacar dafa ne alaaji Malick huwa ki ngay laaj alaaji Malick waaw al alamul faqihu alam foofu doo ko firee xam-xam mandarga nga koy firee la ilaha illallah da ngay xool alaaji Malick rek gis ci moom jëmmi xam-xam allahu akbar sëñ Babacar ne donte mandarga xam-xam la waaye boo ko mosee xam ne kii nazihu almin alaaji Malick ku set xam-xam la la ilaha illallah sëriñ Babacar ne xalifatu cheikhina mooy xalifa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi nëw jë Tidiane yi nag la ilaha illallah bi fi alaaji Maalik di dund kuy Tidiane rek alaaji Maalik ay sa xalifa waaw daa dem ca dëkk bu ñu naan Mauritanie mm-hmm. seeti fa góor gi gën naan Ali Yaqub Fall mm-hmm. Ali Yaqub bi Moham Mouhamadul Hafiz Almandi Cheikh Mawlud Fall moo ko jox tarixa bi mm-hmm. Cheikh Mawlud Fall Mouhamadul Hafiz Almandi moo ko jox tarixa bi Mouhamadul Hafiz Almandi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ko jox tarixa bi waaw xam nga loolu silsila bu wér la alaaji ñu boole kook Aliou Yacoub bi Maodo du fi jële fukki tur yàlla ak benn waaw góor ga gisante Alaaji Malick jox ko juróom-ñeenti tur ya dagg ñaar ya Maodo jël juróom-ñeenti ya tàggu góor gi ne ko xam naa ci guddi gi laaj toppaat yoon wi dem gaaya waaw góor ga tëdd guddi Aliou bi nee na ma tëdd guddi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane feeñu ma li tax ma ne Alaaji Malick sëñ Babacar bim nan ko xalifatu Cheikhuna boobu Cheikh ko dëggal waaw feeñu góor gi Aliou Yacoub bi mm. ne ko Aliou Yacoub bi jëlal li ma la jox nga jox ko Cheikh Alhaaji Malick maa ma nangu li nga yor man Cheikh jël yi li ma yor boole ko jox ko Seydi Alhaaji Malick radiyallahu taala anhu góor gën ne ñokk jug guddi gi dab dabal Alhaaji Malick topp ko topp ko di dem ak Maodo di dem ko ba séen Alhaaji Malick mhm. boobu Alhaaji Malick mi ngi sol jàllaabe mhm. soo demee kitaabu fi xayaati Maulana Cheikh Alhaaji Malick mhm. góor gi Malick Gueye mi ko bind nee na boobu keroog Maodo mi ngi sol silham Alhaaji Malick sol jàllaabe góor ga woo ko sa góor ga nag ca ragal yàlla ga geex tàkk nag daaw gëstu. Ah, ok mu të rësi xawfullahi afnahu. da ko doon ci rasulullah alaaji Mansour nee na. yonent bi ni mu daan ñàkk a gëstoo noonu la alaaji Malick doon dee rasulullahi ci ñàkk gestu gëstu. la ilaha illallah. mu woo sa góor ga Maodo tourné. ak yaram wa sew wa sikkim ba xàjjaloo ga kanam gu leer ga jëbal leer ga alaaji Malick tourné jàkkaaru guur ga. ko alu yaqubi lu xew. mu ko dama laa war a jox fukki tur yàlla ak benn dagg ñaar ya jox la fukki juróom-ñeent ya ñaar laa la doon dabal. alaaji maa ngi ko borom tur wi jox na ma tur yi la ilaha illallah la Cheikh Alhaaj maa ngi ne ko al yaqub bi mu ne ko labbayka mu ne ko sama jàllaabi bi lu muy man alaaji Malick toll naa ci yàlla ku ma bëgg rasulullahi bëgg la cheikh bëgg la waaye ku ma bañ cheikh bañ la rasulullahi bañ la te ku yonent bi bañ yàlla bëggatu la mm-hmm. foofee la alaaji toll ci yàlla diggante alaaji Malick rasulullahi nag seen kóllëre uh-huh. li tax ma ne dafa yàgg mm-hmm. li alaaji Malick wax ci yonent bi di ko décortiquer la nit xamul fu mu ko jàngee mm-hmm. parce que nit ñi bu ñuy bind siira mhm. ñii dañuy jël ci juddu ga rek yem ca mhm. ñii jël ca màgg ga yem ca ñoo ngi ci keppaaru siira ñii ñëw ci askan wi yem ca mhm. ñii ñëw ci màgg ga yem ca waaye ñii wax ci soxnaay rasulullah ya yem ca ñii jël gàddaay gi ñii jël dugg gi mu dugg di a war ñii jël dundam ca a Munawwara ñii jël dee gi siira jeex waaye sa góor ga tàmbalee njool màkk ba njool màkk nekkee leer alaaji Maalik wax leer ya njool màkk génn ci leer ya Maodo dugal ko ci fukki géej Maodo tudd ko. fukki géej ya jeex Alaaji Maalik dugg ak ñun ci askan wi tudd askan wa. askan wa jeex Maodo génn ak moom ci askan wa tudd maam yi jigéen ña maam yi jigéen ña jeex Maodo rocceeku Alaaji Maalik wax pour pourquoi Abdullahi ñu may ko Amina Alaaji Maalik ne xam naa ko. lay daxee xam nga Abdou Moutalib. moo jur Abdullahi. yàlla daf ko sédduwuloon góor. waaw mu ñaan yàlla ne ko yàlla soo ma may fukki doom yu góor dinaa ci rey kenn jaamoo la waaw ñu laaj Seydi El Hadji Malick mhm. ndax ñaan nga nangu na sa maam ne mhm. ñaan nga nangu na ndax mhm. yàlla defal na la ko ñu ne ko maw Maodo bindal mu ne fanaa la maaraama min mawlaahu ashrata abna in yuayniinahu fi lxitli wal xidami sa maam ne keroog bi mu ko ñaanee ñaan nga nangu na comme dafa waxoon yàlla soo ma may fukki doom yu góor ma rey ca kenn jaamoolu ko sa maam ne bi mu ko waxee fàtte ko mu tëdd guddi waaw ñu ne ko yaa waxoon boo boo amee fukki doom yu góor daa nga rey kenn jaamoo ko yàlla mhm. fukki doom yu góor yi mat na mu xëy saraxe te daat guddi ñu waxaat ko même kàddu sa maam ne mu xëyaat saraxe mhm. ñetteelu guddi ga mu xam ne gént gi dootul caaxaan ndax moo ko wax sa maam ne mu bantela doom ya Abdoulaye génn mu bantelawaat Abdoulaye génn mu bantelawaat Abdoulaye génn mu téye Abdoulaye ca loxo ba fu mu jëm daf koy rey. waaw sa maam ne fu mu jëm alaaji maag ne wa amma naxwa isaafin fumma nailatin murida ifa in zaka nazri wal qasami saydil haaji malik radiyallahu taala wa amma jublu na mhm. naxwa isaafin jëm safa waaw summa nailatin jëm marwa mhm. isaaf ak naila mhm. alaaji maag indi cosaanu tur ya pour yow mi jàng nga xam ne lii moo nekkoon cosaanu safa ak marwa sa maam comme daf lay jàngal Uh-huh. bëgg nga xam mu ne uh-huh. wa amma naxwa isaafin summa uh-huh. naa ilatin fu mu jëm murida ifa in zaka nazri wal asami mu jël abdullahi ne daf koy ren makk génn waaw alaaji maalik lu xew mu ne waa màkk topp nañ ci ginnaawam alaaji maalik utilisé ñaari xaaluhu ci benn baat te xaaluhu bokkuñu firi du koo séddale bayit xaaluhu laa tafal biza abadan kay laa yura adatan fii fihri lam tarumi xaaluhu nam di li xaybara fiiha shayba kaahinatin mustamirina bi maa xaalat zawi salami sama xaaluhu bu njëkk bi doon ko digal laa tafaal bul def bisa ci li abadan ba faw boo ko boo jëlee sa doom ji rey ko kay laa yura aadatan fii fiiri lam turam xaaluhu ñaareel bi dan koo digal bu njëkk ba dan koo tere ne ko laa tafaal bii dan koo digal ne ko dem dii li xaybara fiiha shayba kaahinatin mustamirina bi maa qaalat zawi salami alaaji Malik ne départ nañu ca yoon wa ña nga jëm fan jëm ñu ngi jëm xaybar mhm. benn làbbe fa nekk mënoon seet mhm. mais comprendre àddina mhm. Seydi El Hadj Malick nee na bu nu accès boobu ba toog wax ak làbbe bi làbbe bi sigg xool leen laaj waa Màkka yéen seen askan ku fa rey nit te tayu ko nu ngeen koy def ñu ne ñun dañ koy njotee fukki gi fukki gileem mu ne jël leen gileem dekk xale bi bu ngeen sànnee bu dalee xale bi ngeen dolli fukk bu dalee gileem yi ngeen rey gileem yi sa maam ne danoo sànni mu dal fukki gileem ñu dolli mu dal xale bi ñu dolli mhm. ñu sànniwaat mu dal Abdoulaye ñu dolli alaaji Malik ne ñu dolli ba lamma ila mi atil ajmali qad wasanat mhm. biñ demee ba mu ma téeméeri giléem keroog bi nu sànnee la dal giléem ya la ilaha illallah Maodo téeméeri giléem biir màkk xaju fa uh-huh. nu nu def alaaji Malik ne yàpp ba dañ koo séddale nit ñi séddale ko it njaay àll yi ñu bokk noo lekk ko événement bi jàll sama mbaayul yonent bi uh-huh. ne waxaasu jurhumu la ilaha illallah baytallahi raziqina Uh-huh. min baadi naabitin asfa min arruxumi wa qul xuzaata uh-huh. bazu makkata galaban alaaji maalik ne buñ la laaje makka kan mu occupé woon makka alaaji maalik nee na xëy nanu nangu kaaba gi uh-huh. ngir lan ngir noteel waaw bi nu nangoo kaaba ga nangu teenu zëm-zëm ki sakk teen tax mu sakk ko circonstance yooyu alaaji maalik wax ko waaw mais mais sa góor gi waaw lii lii lii lii du jàng nag du xam-xam nag mbokk yi. moo tax moo tax moo tax euh, sëñ Abdou ne bàyyiwul dara. bàyyiwul dara El Hadj Malick Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum nee na. Hmm? yàlla bu amoon lu muy nëbbal rasulullah yi. Hmm. El Hadj Malick feeñal ko. la ilaha illallah ndax xam gi mu xam yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sa maam ñii la toppee xilaas. di ko topp waaw. génn ci histoire teen ba. waaw dugg ca Kaaba ga. Hmm. bi ko Abraha di toj ci. Mhm. bi muy génn ca Kaaba nag ci la joof ci Abdallah xam nga sànq dafa la jàngal Abdallah histoire bi ko dal mhm. ne yalax Abdallah mhm. indi histoire Zamzam indi histoire Kaaba gi indi waat Abdallah ne la bul fàtte maa la ko waxoon ne dañ ko bëggoon rey mujj ñu koo rey fu Abdallah yi mujj alaaj maa nga xam naa ko waaw la ilaha illallah fu mujj mu ne bàyyam gàddu na loxoom nag yóbbu ko di ko utili soxna soxna sa magee boroom këram douze ans amina bi ko Abdallah yi di denc amina ngi am trente ans Mhm. sa maam ne Abdoulaye am 18 ans. bu mhm. ñu xëy na usine. Mhm. lu tax mu takk ko. axla nisa sharafan axla nisa nisbatan axla nisa iftixaaran min jududihim la ilaha illallah sa maam bu buñ la laajee critères yu tax ñu denc amina alaaj maa ngi ne xam naa ko axla nisa sharafan jigéen ñu màkk booy war ko ci tedd jàppal amina waaw sëriñ maam Malick yàlla na yàlla guddal fanam bu sëriñ Mansour borom daara ji nee na gel booy ci doxaan boo ci am baax na mu ne waaye soxna nag takkal nday ja mm. xoolal ni nday jamel ci baax ci personnalité ci nangoo mën a sëy nga jël doom ja alhamdulilah amina boobu aala nisa sarafan aala mhm. nisa nisbatan ndax mbokk rasulullahi la di mbokk sallallahu alayhi wa iftixaaran min jududihimi la ilaha samaam maa yëg nga ni daa ma sa toog ak mag ñi ñeneen bii bii Cheikh Sidi Ahmad Tidiane defal na ma mhm. teraanga goo xam ne nee ne bëgguma ko siiwal ndax bu ma ko waxee nit weddu ko dem safara mhm. te ma yëg nga ne Maodo Tidiane duñ problème waaw déedéet alaaji maa rek Sénégal gii ñooy problème am nu muy def ba Sénégal yëpp dem àjjana mooy problème la ilaha illallah Maodo du sëriñu ay Tidiane ak yooyu kese ah. mooy sëriñu sëriñ si sëriñ si gàddu taalibe yi dañ dañuy xëy yàkkale ko góor gi góor gi xam ne situation bi lu mu métti métti ci moom lay mujjee mhm. situation mooy naka lay def ba réew mi muy dund ñëpp dem àjjana allahu sa maam daa xëy bis dajale mag ñi ne leen biig Cheikh Sidi Ahmad Tidiane daf maa jële fii mhm. ma ànd ak moom waaw nee na ñuy dox ba ci yàgg di yem ci suuf bu weex tal mhm. nee na Cheikh Tidiane ma taxawal ma taxaw mu ne ma xam nga kii alaaji maa ngi ne ko xam naa ko kay mhm. mun ko kii kala mun ko samaam rasulullah sallallahu alayhi ko ci moom laa dund indi nee na keroog la Cheikh si Ahmed Tidiane ne ko maam mu ne ko labbayka mun ne ko Malick mii laa la doon wax. dégg de. maam mu ne ko labbayka mu ne ko Malick mii laa la doon wax. nee na keroog la Cheikh Al Hadj Malick ko nettali boppam sëriñ Abdou Aziz Alamine nee na Maodo ko waxal boppam ne keroog yonent bi def na ko simmil sa mbubb. alaaj maa ngi ne ma simmi sa mbubb Rasulullah simmi si la bi mu soloon. waaw maag moom ñu warante ginnaaw di jonjonte ginnaaw. ba nu pare. yonent bi door ko wax ko wax mu ne lim ma wax nag ruus naa ko nettali nit di ko dégg dem safara waaye teraanga ji daal bi ki bi defal na ma ko allahu akbar góor gaa ngoog diggante ba yonent kooku nag miin yonent bi waaw xam ko nag waaw mais mais cofeel xam gi dëgg la waaye cofeel gi mu ëmb rasulullah mais mu defal ko ko ci réew mi lu ko kenn defal waaw sama maam Alaaji Mansour nee na mhm. altinek talaata ak àllarba ak alxamis ak ajjuma ak samedi dimanche waaw dañoo xëy def délégation dem ci Alaaji Malick waaw nuyoon teeg moom Maodo siggi ñu ne ko ñun ñooy semaine bi lu ngeen fii def ñu ne ko dañoo woon ngir sant la gërëm la alaaji maak ne lu ma lu ma leen defal ñu ne ko liy baax ci bis bi sa njaboot a ko fiy def sa njaboot ñooy jug fajar nit ñi julleen doo fajar génn bàyyi jàkka ji ñoom ñu toog ñuy naasira xaq bil xaq sa njaboot gii nga am bu tàkkusaan jotee ñooy julli tàkkusaan ba noppi tey kurus di julli ci rasulullah yi sa njaboot gii nga am mhm. suuf si tey bu demee ba neex di laab ñuy nawet di ñëw muy barkeel muy ñor di barkeel la koy def salaatu yooyu sa njaboota ko fiy def mhm. alaaji maag ne waaw lool ngeen may santee ñu ne ko waaw alaaji mën su ne radiyat bi kal ayaamu mhm. yaa xaawil maarifi yow mi nga xam ne semaine yëpp daje nañu gërëm na yow alaaji malik ndax nee nañu yow yaa làkk gën gi baax ci sa njaboot julaasuhu wa saxaabuhu aghnawka an tawsifihi wa hum fi kulli makanin la ilaha illallah mais alaaji malik mais yaa ngi waxtaane ku neex waxtaane mais góor gi xam wax naa ko démb ñun oh laa ilaaha illallah. يا ترجمان العلم والقرآن موده يا ترجمان العلم والقرآن من ذكر شيخ عالم متوري جنبر له خاد الأنام إلى الهدى بحناني مولى شيخ لا تقي لا يزن بريبة على استقامة بالإله المعاني bind mooy Alaaji Mansuur عين الغريعة والحقيقة إنه Oustaz maa xam nga ne Alaaji Mansuur Cheikh Al Hadj Malick daf ko dippee yonent Yàlla Muhammad عين الشريعة والحقيقة إنه Alaaji Mansuur mii nag nee na sharia bu doon tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ mooy alaaji Malick aynul haqiqati wa sariati illa alaaji Mansour tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ ma ne mooy alaaji Malick yow dil murid li bu doon jëmm tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ mooy alaaji Malick aynu shariati wal haqiqati innu alaaji Mansour ne Seydi El Hadji Malick aynu shariati yaa jëmmi sharia wala haqiqati yow alaaji Malick yaa jëmmi haqiqa innahu yëgal waa ji يهدي المريد لخالص الأثيان boo ko xamee tilim boo agsee ci moom set boo koy xam jàngoo boo agsee ci moom mën boo agsee ci moom bëri xam-xam boo ñëwee doon élève am boo accès si moom naw sa bopp ci wilaaya boo ñëwee ci moom xeeb sa bopp Seydil Hadji Malick yéex di day dindi almuridina taalibeem yi ko yaakaar ñu ko bëgg ñu ko comprendre parce que liggéeyu ndey mënta weesu nga ne alaaji Malick ak sama sëriñ baay bu saako nee na boo bëggee xam ku liggéey ndey xoolal taalibe alaaji Malick la ilaha illallah moom boo koy jéem a comprendre sax da nga koy bëgg gëstu ko rek mhm. alaaji Mansour ne yéex dil muridi mooy dindi taalibe yi li xaalisil addiyaa ni jëme leen ci gën geesel li diine moom Seydil Hadji Malick tabarakallah saamil maqaami laa ilaha illa allah saamil maqaami alaaji Malick ku yëkkati ko daraja la wa umdatil ulamaa bal bal bal bal ustaz ustaz ustaz ah, ah, ah, alaaji Malick alhamdulillah Maodo wa umdatul ulama yi alaaji Malick fii laay daanele mooy balluwaay borom xam-xam yi ñu raw ci réew mi ñëpp leen jàngal alaaji Mor Xudd si Maodo ko jàngal maam Rawxaan Ngom Maodo ko jàngal maam Mor Binta si wax leen Maodo ko jàngal alaaji Mamour Khoudia Sy Maam Rawhan Ngom taalibe Maodo la Mamour Binta Sy taalibe Maodo la Abdou Fati Niang taalibe Maodo la alaaji Baba Ñong Sapodor taalibe Maodo la alxaaji Mayoro Sall taalibe Maodo la Mouhamed Aminata Sy taalibe Maodo la Gorgui Cheybata Fall taalibe Maodo la Mamor Dieng taalibe Maodo la taalibe Maodo la Serigne Youssoufa Diop. taalibe Maodo la Serigne Aline Diop Maymouna. taalibe Maodo la Serigne Aline Diop Maymouna. taalibe Maodo la Alaaji Pedro Diop. taalibe Maodo la Alaaji Abdoulaye Samb. taalibe Maodo la Chérif Younous Haydara. taalibe Maodo la Gorgui Khadi Aline Dia. taalibe Maodo la Serigne Aline Diop. taalibe Maodo la Serigne Alim ba Cugumba. taalibe Maodo la Serigne Ndiaga Ndiaye. taalibe Maodo la Samba Yacine Sey. taalibe Maodo la Alaaji Ngunta Diop. taalibe Maodo la Boyge Abdoul Hamid Kane. taalibe Maodo la Alaaji Thierno Kandji Cuddu. taalibe Maodo la Boyge Malick Sarr. taalibe Maodo la Serigne Issa Ndoye. taalibe Maodo la Samaam Serigne Ousmane Ndiaye. taalibe Maodo la Serigne Hadi Touré. taalibe Maodo la Cherif Bassir Haydara. taalibe Maodo la Cherif Mamin Haydara taalibe Maodo la Cherif Youssoufa Haydara taalibe Maodo la Ahmed Taban Al Alawi taalibe Maodo la Serigne Ahmed Fall taalibe Maodo la Serigne Sidi Ahmed Sy taalibe Maodo la Serigne Babacar Sy taalibe Maodo la Alhaji Mansour Sy taalibe Maodo la Alhaji Abdas Dabax Sy taalibe Maodo la Serigne Mame Habib Sy taalibe Maodo la mais nit ñi toog sax taalibe Maodo la nit ñi toog sax ay taalibe Maodo la Abdullahi mani taali be Maodo la googu daali be Maodo la ay taali be Maodo la ay taali be Maodo la ma kunta malja taali be Maodo la ay taali be Maodo la yaa ngi jàkke yaa ngi nii. ngi séddee Alaaji Maalik Lo Fera taalibe Maodo la. Ah, imam yaa ngi ñooy jiite. ñu fi raw taalibe Maodo la. Ah, taalibe Maodo la. ndeysaan ñu fi raw taalibe Maodo la. ndeysaan dalay digal dalay dugal dalay yëgal dalay bégal dëkkale la ak ëllëg mbugal taalibe Maodo la. oustaz li garaw taalibe Maodo ji kii moom a inspiré ma xalaat ko mais naa ci travail way ko fi na nii fi na nii may toog nii tabaarakallaahu yéeg naa feneen yéeg naa feneen oustaz yal na yàlla barkeel yal na yàlla guddal sa fan bi jaay Seydina Muhammad xam naa nag tabaarakallaahu balaa ñuy tàggatoo dem nen ba rof ñu sax minute waaye xam naa sama gars yi dañoo xaw a kiyaat laalaat ma tuuti rek cinq minutes balaa may kii Abdoul Aziz dañ lay bàyyi tabaarakallaahu nga tàggoo rek tey dafa nekkoon premier numéro rek mu waroon départ nag 17h jeex 18 waaye ni mu demee dong la tabaarakallaa ko beneen yoon chaque mercredi lay doon émission keppaaru siira nii rek la ñu ko defee tabaarakallaa ko macha allah te nag dañoo nekk tabaarakallaa ci fukki fanu burdu yi ñu commencé ko ci kon tabaarakallaa moo lay abdu dañ dañ lay bàyyi nga tàggoo waale jërëjëf oustaz ah, tabaarakallaa ni nga ko waxee léegi rek ah, xool yëpp yéeg na mhm. waaye xool yëpp màndi na ci yonent bi ndax oustaz li mu fi waxtaane macha allah ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaanal mbooloom ku ñuy seetaan Mm-hmm. waaye di wax chauffeur yi nañ ñu dimbali rek ñu daw ndànk mm-hmm. bu ñuy dem Tiwaawan nañ daw ndànk te it ku uh-huh. fa demit na nga xam ni yàlla rek moo ñu tax a jug ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uh-huh. bañ faa def leneen luñ lay xeebee mbaalu dëppoog la ñu fa digle uh-huh. bëgg nañ ci yow oustaz di gërëm ñëpp rawatina waaye yëmbal gi ñu dëkk ñaan suñu borom defal leen jàmm amiin defal ko mbooloom julit ci baax sayyidina Muhammad oustaz maa ngi nuyu sama benn wëllëre bu baax ñu koy wax baax yaay lunette mm-hmm. baax yaay lunette di di di defar ay veer waaye di ku baax. baax yaay eh, waaw di teral gaa yi ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ko boroom borom géejawaay. baax yaay lu nekk gars yëpp a ngi lay nuyu waa plateau bi. tabaarakallahu macha allah. Oustaz Omar mu ngi lay nuyu. Oustaz Omar it mu lay nuyu tabaarakallah ñu bàyyi Oustaz Omar mu tàggatoo moom it. waaw xanaa di kontaan rek Oustaz di bëgg lool fii nga toog it. nga mhm. toog fi toogaay yu Tiwaawan. Mhm. nga tel ko comprendre nag. Mhm. yàlla dogal ngay jàmbaar ci kër gi. jërëjëf di boroom taxawaay. jërëjëf bëgg yonent bi rek nag. est-ce que est-ce que jërëjëf fii nga toog di waxtaanee rasulullahi. sallallahu ki tax nga koy waxtaanee mënu jug réew mi kenn du ko fi waxtaanee te doo ko tudd. moom Mawlana Cheikh Sidi Hadj Malick. radiyallahu waaye bëgg la nag. ngir yàlla ak sa taxawaay. yàlla yàlla sàmm la. amiin amiin maa lool ci Moulay Abdoul Aziz Ndiaye. yow foo nu soxlaa rek. lu nu jàpp jàpp daan nu ko bàyyi ñëw. ngir yàlla ak sa mbaax yàlla yàlla guddal sa fan. amiin tabaarakallahu di nuyu soppe yëpp. waaye nuyu Alxaaji Mansour Lo boobu ba tey mi ngi nuy woo di xamal ne mi ngi bàyyi xel émission bi. Mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di nuy kenn koo xam ne euh, day kenn ci man teraanga bu ne mënu koy defar rek. ngir mhm. yàllaa ak mbaaxam maa ngi koy nuyu moom comme nee na bëgguma tudd turam. Mhm. waaye daal maa ngi koy nuyu bég naa ci moom lool. mi ngi noonu wasalaamaaleykum yàlla na ko yàlla fay. Moulay baax yaay dinaa di di ma ko partagé ma partagé la kii may nuyu. waaw ah, ah, baax baax yaay lonet baax yaay lonet <laughs> ñun ñun ñëpp a ngi koy nuyu a ngi koy nuyu tabaarakallaahu baax yaay lonet waa man maay waxee seen kàddu tabaarakallaahu ñoo ngi lay nuyu baax Baxraay hmm. Baxraay lu ne ñu ngi lay nuyu ah. tabaarakallah <laughs> waaye waaye Mawla Abdoul Aziz tabaarakallaahu comme tàggoo ngeen balaa may jaaxal nag yéen dama leen di sant tabaarakallaahu dama leen sant ci déplacement bi ndax yéen tabaarakallaahu da ngeen a baax te da ngeen nekk samay kilifa loolu lu am la tabaarakallaahu hmm. hmm. ngeen nekk suñuy frère nekk suñuy mag loolu loolu la yàlla dogal tabaarakallaahu ndax yoon wi ku lu ci jiitu rek jox ko cër ba mu yelloog wàññiwu wula dara ah lu mu lay wàññi lu tee tabaarakallaahu li nga mel noonu rek ngay mel tabaarakallaahu kenn mënu ci dara tabaarakallaahu macha allah oustaz Amar ñu kontaan ci moom lool ndax tabaarakallaahu yenni affaire yu loolu mu loolu ñu tabaarakallaahu nañu dem leen ngeen doxal <laughs> loolu mbaaxam la tabaarakallaahu te dañu conseil lool ci li ñu nekk noonu la koy Mawlay Abdoul Aziz Ndiaye mii di ko defee mhm. tabaarakallaahu ndax moom bokk na ci ñu ñu ñu may fit nag ndax fu ñu dajeek moom mu conseil ñu dañuy defeel nii ak nii ak nii ak nii loolu nag tabaarakallaa ñu ngi ko ci sant bu ko neexoon mu bañ koo def wallahi bu ko neexoon mu bañ ci yëkkati kàddoom émission bi nag ñoom ñaar ñëpp xat ne lool sax yàlla xam na ko ku xam burdu yëg nu mu demee surtout heure bi waroon na leen fekk ci yeneen jotaay waaye ñu bàyyi lépp ngir teew tabaarakallaahu ngir yàlla ak sama jëmm ji maa ngi leen di tabaarakallaahu kontaanee loolu tabaarakallaahu macha allah yàlla leen yàlla fay yiw bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xam naa Mawlaay Abdul Aziz da ngay daaneel benn woy bu kii rek tabaarakallaahu ñu wàccee tabaarakallaahu émission bi insha allahu taala ñoo ngi tuub nag ci gàttaay bi bëggoon nañ mu gën a yaatu wallaay dëgg la jërëjëf waaw xam naa ñu tëjee ci sëñ Babacar rek ndax xam nga ni mooy soppey ndaw ñeeg mag ñi nag ñu tëjee ci moom cinq minutes rek naa duma ci yàgg ñu ñu ñu ñu ñu way way wa rek ñëpp ànd ci ñu daal koy yëkkati ko waale góor gi ndar ndar la daanati nga góor gi ndar ndar la daanati nga waal gi ndar ndar daanati nga nga daan nga góor gi ndar balbal waalo waalo bi daanati nga góor gi ndar ndar daanati nga góor gi bismillah eh, yee ma way daanati nga bàyyi Seydi Jamil loo oh, ah, ma way